information yi nga xamante ne mooy am ci terrain fii ñu toll nii euh, information bi ñu jot nii du ñàkk dinañ jot image yi pour mën leen koo jox mooy siège jo Pastef ñi ngi koy attaqué fii may waxe ak yéen te waa gendarmerie ñoom ñooy défoncé porte bi pour bëgg a dugg ña fa nekk sur la VDN ña fa nekk ñi ngay yuuxu gendarmerie ma ngay forcé ne day attaqué siège u Pastef bi nekk ci VDN loolu mooy l' information bi nga xamante ne moom la ñu recevoir bëggoon nee nañ leen ko jox pour yéen ñëpp ngeen xam ko ki fa nekk te moom mooy souvent ki nga xam ne moo fay nekk nit ñi mooy euh, su ndaw su jàmbaare soosu di Fatima Mbengue moo ñu jox léegi l'information encore une fois de plus waa gendarmerie fii may waxee ak yéen ñoo ngi fee ca siège Pastef di dajji bunt bi pour yëg ci kaw siège Pastef nag deux choses nga fa bureau président Ousmane ay xale yi nga xamante ne ñoo fa nekk di liggéey ci Pastef donc lu leen daal ak amul dara loo xamante ne mi ngi fa te nous ne comprenons pas pourquoi ñoom ñu mëw rek bëgg song ba song nañ ko fii may waxee ak yéen loolu mooy information bi nga xamante ne nous tenons à ce ngeen jot ci mais non seulement nous tenons à ce ngeen jot ci mais aussi ngeen xam l'état de temps ci oto sa tur commissaire bi wala commandant bi wax ak ku waxal téléphone di wax di muy waxal téléphone pendant une heure de temps leen a bàyyi ne leen dem leen waaye du ngeen jàll dem ci Ousmane Sonko alors qu'ils sont toujours ci àdduna la ñu taxawoon pour ñëw si fii nga xamante ne mooy te problème bu yi ngeen xam ne yéen koy wax fi ñu nekk kër président Ousmane dañ fee def ay brouilleur ñoo ñuy tere suñu liggéey ñu def ko ni nga xamante ne nooy waree fi ne nii maa ngi wax ci kaw ñi ma wër tey jii nii ñi ngi may dégg donc problème bu bi en réalité du ci ñun mais en réalité mi ngi nekk ci problème wu donc ñun dinañ jéem a yëkkati bu baax baa ngeen comprendre ko kon information bi encore une fois de plus mooy waa gendarmerie ñi ngi attaqué fële nga xamante ne moom mooy siège Pastef ñu défoncé bunt bi information bi ki ñu ko jox moom mooy ndaw soosu di Fatima Mbeng am na ñu fa nekk lu leen dal buñ leen gaañee le seul responsable s'appelle Macky Sall parce que nu ne comprenons pas lan moo xew ba ñoom ñu dem foofu nga xamante ne moo di Euh, siège Pastef pour ne ñooñu lañ leen di jàpp xamuñu lan moo ko waral loolu mooy information bi njëkk bi ñu leen bëgg jox deuxième information bi am nañ ay information ci wóor na ay nervi placé nañ leen ci yenn këru yenn responsable Pastef pour buñ bëggee génn ñu bëgg leen a attaqué nervi yooyu nag ñoom nañu xam li ñuy def waaye buñ xam ban répondant la ñuy am loolu moom c'était une information buñ leen bëggoon a jox mais l'information à chaud fii may waxee ak yéen à moment nii fële ca siège Pastef amaguñ nag image yi parce que xale yi ñu nga woon ca biir buñ ko amee dinañ leen ko jox parce que ñun en ce moment ñu ngi fii ci euh, kër président Ousmane waaye foofu daal waa gendarmerie ñi ngi attaqué ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di daj porte siège bi parce que dañ ko tëj ci kaw la ñu nekk ñu ngi koy dajji ngir jëm fa dugg loolu mooy information bi léegi nag ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy wax waxi démocratie waxi force reste à la loi waxi euh, nous sommes dans un pays boo xamante ne c'est une république je me demande bien ban république la ñu nekk xanaa c'est une république bananière wala république boo xamante ne dictature moo fi am leneen li am na journaliste yu ma woo ne ma dañoo bëgg am accès pour ñëw kër président Ousmane Sonko def seen liggéey ñoom nee na dañ leen a autorisé wul ñu accès dañ leen a dàq fu mu gën a sore loolu ñaar la mën a firi mooy ñoom li ñuy bëgg na def ci jaay doole xaqatal nit ñi gaañ nit ñi bëgguñu sénégalais yi gis ko loolu mbir la moo xamante ne mën na ko waral wala beneen bi mooy ñu bëgg jàpp président Ousmane Sonko te sénégalais yi duñ ko yëg waaye en tout état de cause amul fu ñu mën a jaar boobu posé acte boo xamante ne ñun duñ leen jox information bi tant que ñoo ngeeg suñu bakkan ak am ay moyens pour mën leen a jox ces informations kon la dictature de Macky Sall n'est plus en rampante n'est plus rampante elle est en ngi dox jëm ci kaw sénégalais yi nga xamante ne dañuy déclarer liberté kon information bi ñu leen loolu la siège Pastef am na ni encerclé nañ ko am na ay ndaw yoo xamante ne arrêté nañ leen ñoo ngi ne woon dinaa leen ko jox kon encore une fois de plus ngeen ànd ak ñun lépp lu ñu am ci information à chaud dinañ dugg si fii jox leen ko mais fii ñu wax ak yéen nii nii nii à cette heure siège Pastef am na jeunes yoo xamante ne arrêté nañ leen muy ay ndaw yu Pastef waaye siège ba ñoo ngi koy dajji lu fa xew lu leen dal ñoom la loolu mooy information bi ñu leen bëggoon a jox.